man damaa ñëw laaj nag après ci la ma waaj tontoon ni ma yàlla yàlla ñooy ñuy wax euh, euh, diw yàlla la suñ tubaa yàlla la waa kër ba ak Baay Ñas yàlla la loolu la wax looloo tax ma soog a ñëw ni ko waaw man bi ma déggee yooyu moo tax ma dem ji man waxuma ne kenn moo yàlla de waaw waxuma kenn mooy yàlla waaye comme dégg naa ne ñoom ñu ne lii yàlla rek kon ñoom jamono jooju dama leen jàpp parce que man yàlla laay wër nee naa la même waxuma la Baay Ñas même duñu woon bant bi moo yàlla sax man dama ko war a gëm comme que yàlla laay moo tax ma ne dafa am ku war a ñëw na ngir dàqal ma yàlla jooju leeral ma yàlla pour man ma xam ñu xam yàlla fu mu ne bu fekkee yàlla tamit nekkul fenn ñu yàlla ku ñuy gis la ñu xam ne ku ñuy gis la fekkee yàlla ku ñuy dajeel la ñu xam ne ku ñuy dajeel la fekkee loolu yëpp mënta am tamit ngeen indi ma jàngat mu leer rek bu ma ci mën a bu ma mën a amee leer daal pour mën a comprendre parce que yow bu fekkee da ngaa taxaw ne Baye Niass du yàlla man wax dëgg yàlla taali Baye Niass waxtaan nañ xanaa su ak ñoom am na benn bu ñuy wax sax xawma lu ñu wax naan Baye mooy bakkan mooy gox yi mooy fépp fu ngeen mënti dem daal loolu koy dégg naa ko ah wala ñaari xaaj la. xam nga loolu moom dafay am dafay am ci kuréel gu nekk man dafay dem ba dañ naan xanaa yow doo taalibe man leen déedéet li li li ñuy wax nii loolu amul du dëgg du dëgg du dëgg duñu duñu nit mooy yàlla ba nit di war ko gëm te nit warut a gëm nit ñun yàlla lañ war a gëm. yàlla borom bi subhanahu wa taala moom lañu war a gëm te moom lañu war a jaamu moom lañu war a ragal yàlla moo ñu bind te ëllëg yi buñ deewee buñ deccee moom moo ñuy xisaab doon jëf comme kooku noonu. yàlla borom subhanahu wa taala war ñoo jël kenn kenn di ko tëkkale ak moom parce que tey bëri na comme li nga wax ci sa biir euh, wax waa ji bi mi ni ni mu ko waxee nee na ay taalibe bàyyi nañ ñoom yàlla lañ man dam dégg naa ko man am na ñu bëree bari jàppante nañ ci wax ba sonn man leen du dëgg du dëgg amul gisuma ko fenn fu ko bindee xataa wax ji waa wax sax mu ni comme nee na bàyyi nee na anan na suwal afa comme loolu loolu dama koy jël rek euh, dugal ko ci li waa ji bi fi jaar sàng ma déglu mu ni boroom xam-xam yi fi jaar mën nañ juum te dundikat day juum ñun dañu war a nangu loolu loolu foog ñu def ko suñu biir bopp yi buñ bëggee ñun jullit ñu dund ci jàmm suñu sëriñ bu ñu juumee ci seen ay wax ñu nangu dañoo juum parce que bu fekkee ne moom moo wax loolu léegi moom ana nafsu te moom amoon na nafsu su na n'est-ce pas comme comme comme loolu nit ku nekk rek dafay bàyyi xel bu baax a baax a lan mooy jullit lan la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal parce que nekk naa jullit rek te gëstuwoo mbirum jullit tamit ah, man damay jàpp ni loolu dafay des bu bëri bu nit ñëwee nii la nit mooy yàlla te kooku di mbindeef te yàlla yàlla wax naa ñun bu yàgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale na ne waaw baax maa ngi ñëw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale jàngale nañu wax nañu yàlla borom subhanahu moom moo amal jaam i léegi keneen ñëw nii la man maay mbindee man man maay yàlla te keneen man maay yàlla day dee am na ay doom te yàlla du am du jur te kenn jur xam nga loolu tamit mooy tax daal ala kulli haal ñun ñëpp nañ jàpp ne ay jullit lañu am na ñoo xam ne nag suñu biir ñoom ay kàccoor lañu ay kàccoor ñëw di yàq diine moo leen tax a parce que mënoo xam ne yow jullit nga te gëstu woo si mbir mi nga nekk man de wax dëgg yàlla euh, li may li ma li ma waxoon ba tey dama koy wax ci groupe bu ma mën ci dem tamit bu ma fa mënee di wax rek dama koy wax dama naan yoon bi ma nekk ni gis bu ma gis déggee loolu wala ma gis ko ci mbind mbaañis bàyyi mu ni moom mooy yàlla wallahi bis boobu damay génn ci tarixa génn carrément waaye gisaguma ko ci nag waaye bis bu ma ko ci gisee ay nit nag ñu ngi koy wax di ko ko askan la waaye bàyyi du yàlla bàyyi mi ndefum yàlla jaamu yàlla loon bu doon jaamu yàlla ñun tamit ñu rafet njott ci jaam googu mu doon ci jaamu yàlla di kennal yàlla ragal yàlla ci loolu lañ ko doon royee ci loolu lañ koy jéem a royee nag euh, dangay gis ni tey ñun dañoo jaxase ñaari yooyu ñun ñun ñun ñi nga xamante ne day wuyoo suñu bopp ay moto sayfin dañoo jaxase yooyu maanaam xam yàlla ak gis yàlla ñun dañ ko dañ koo jël jaxase ko ba pare bëgg koo def benn te loolu du benn yàlla xam ko sax xam yàlla xam yàlla ci boppam moom moo war a gën a yitteel nit ki dina ka nekk fi ay gis yàlla ak parce que lan mooy problème léegi lan mooy indi problème bu nit ki ne man gis naa yàlla bu ñu ko yàlla naka la mer léegi mënuloo ko melal nee na comme <laughs> daal lu gën a wér ba wér te alquran wax na ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni te nit ki mënta xam yàlla mukk te jaamuwut ko mënta xam yàlla mukk mukk mukk te jaamuwul yàlla te jaamu yàlla jooju ci ngay mën a jàngee alquran parce que kenn mënul jaamu yàlla te doo jàng alquran loolu moom mënta nekk kenn mënta xam yàlla te doo góor góorgóorlu ci sa diine parce que diine jooju moo lay yóbbu ba nga xam njolloxtaanu neexaayu jaamu yàlla neexaay bi nga xamante ni ñi góor yàlla yi ñu ngi ko doon yëg ci ci ci ci yëg gi ñu doon am ci yàlla maanaam jaamu yàlla moo leen moo leen ko moo leen ko may ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, yàlla lu mu ko jéggal jéggal ay bàkkaaram waaye moom taxaw na di jaamu yàlla comme nit ku ñëw ni la man damaa xam yàlla wala damaa bëgg xam yàlla te du ma wala damaa bëgg a yàlla te du ma ko jaamu xam nga kooku dalay nax wala man gis naa yàlla wala man yàlla laa loolu yëpp ay fen la ay du dëgg man taalee Baye Niass daa maa ko wax loolu du dëgg képp la ni man Baye Niass yàlla la wala ay sama sëriñ yàlla la du dëgg loolu du dëgg amul lépp la dëgg dëgg boo demee baa nga ca pays wa hadratul qudsi da xam ne wama alkalbu wal xinsiiru ilaa ilaahuna wama allahu xayra rahibin fil kanaa'is sang bi nga ne boo demee ba si digg yàlla ba boo demee ba ci digg yàlla ba da nga xam ne xaj beeg mbaam mee golo gee fas weeg nit keeg xilimaan beeg ba sang ba ca ñoom ñoo wamal kalbu wal xinsiiru ilaa ilaahuna wama allahu xayra xam ne lépp mooy yàlla waaye nag fi xàgguloo nag ci place booba nag mën a gula boolente jéeri ak géej jawo ak ngelaw li yëngatu ak li dal lépp nga def ko muy benn di wax ni dégg nañu ci sa biir kàddu nga wax ni euh, dañuy wax ni diw mooy yàlla diw mooy yàlla loolu sax nit ku nite waru kaa wax nit ku xam waru kaa wax waaye dinaa taxaw ci benn point rek ni euh, nga wax ni Baye Niass dañuy wax ni Baye Niass mooy yàlla loolu ku ko wax waxul dëgg ku ko wax Baye Niass bindul loolu ci ay bindam euh, man mii taalibeem laa waaye moom bindul loolu jàngalewul loolu déedéet nit ñi nag dana am ñoo xam te wax wax yu yéeme ci biir tarixa bi ñu nekk ci biir fayda bi ñu nekk di wax ay wax yu yéeme parce que nit ki moom fi nga topp mu nee na la kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla ni nga xamante ni juru kenn kenn juru ko te Baay Ñas am na ay doom kon loolu rek doy na ni borom xel bu ñu ko waxee ni kooku nee na mooy yàlla rek luy luy luy luy dëgg nga ni wax wax jooju wérul du dëgg Baay waxul mooy yàlla amma yeneen côté yi nag xamuñu xamuma ci dara waaye comme lii nii nga li nga tudd moo tax sax ma ndekk sa numéro di ci wax pour ma leeralal la foofu rek man de taalibeem la waaye man de waxuma ni ma mooy yàlla te te te gisuma ko tamit ci bindam ñun ñi nag dañ koy wax nag dañ koy wax am na ñu koy wax yàlla moom dëgg rek la bëgg am na ñu koy wax waaye ñooñu tamit même man damay jamaarloo ak ñoom ñu leen loolu dëgg yàlla rek mooy yàlla yàlla moo ñu bind ay mbindeefam lañu waaye képp ku taxaw ni sama sëriñ mooy yàlla waxul dëgg. waaw <laughs> salaamaaleykum euh, Baye Mohamed ah fi nga gënaat ndeysaan yoo xam naa sa mission lii la moom ndeysaan ah lii de moom waxtaan la de egg waay la de Baye Matar Ka démb nag daa mel ni dégg naa benn talib bàññees bu fi nekk di di weddi lii xam naa ne kooku moom xam naa ne moom moo am moo am lay ci lii bokk moom moo ko doon weddi te kii nga xamante ne ni moom mooy saxal lii te di ko euh, leeral kilifa li ci kër Cheikh Ibrahima muy Baye Matar wax dëgg yàlla arif bilaay la ko xam yàlla la ko egg si yàlla te jeex si yàlla la fi muy waxee nag képp ku fa eggul xamoo ko wax dëgg yàlla boo ko dégloo weddi ko boo ko déggee it weddi ko waaye képp koo xam ne xam nga ko egg nga fa bu wér da koy seede ndax egguwaay la wax dëgg yàlla egguwaay bu wër la de ko fa eggul na xamoo ko waaw ki nga xam te ne nag moom nee na bokk na ci kuréel googu wax dëgg yàlla te di ko doon daggi lii wala mu moom mbàñees musu ko wax wala kenn musu koo wax wala amu ci ah moom mën na ñëw leeral ko rek waaye lii moom ñun yàlla yàlla yi xam yàlla egg ci yàlla gis yàlla egg ci pays yàlla ba non lii dañ koy seede waaw ndax fii lépp lu fi nekk jaam di ko tudd rek yaa ngi tuddee loolu waaye du loolu yow li nga tuddee du dëgg nag waaye ni ko yàlla tuddee mooy dëgg waaye ko yàlla tuddee nag képp ku ci egg ba jeex ci pays boobu noonu lépp dana lapp di kenn fu nga mën a lay kennal yàlla ci kennam gi léegi kenn képp ku eggul foofu xamoo ko gisoo ko mënoo seede dëggu yàlla ba ilaa yami day bi dëgg it eggoo ci waaw ndax dëgg moom moo di yàlla waaw mukk samay dalaa bi moo tax nit li nga nekk da nga koy fexee xam nga man koo lay wóolu ko nag waaw da ci am yaqin bu wér man koo lay bu fekkee xamoo ko wóolu ko du la jariñ dara ji nga nit lépp loo xam sax te amu ci kóolu du la jariñ moo tax yaqin dafa am solo xilmul yaqin xaynul yaqin xaqul yaqin góor yàlla da ciy egg te diine nitu diine da egg ci loolu day egg ci ngëm ngëm ay dimension la moo déggee ñu la da ngay gëm ci kumpa dimension la da ngay dem ba romb gëm kumpa waaye la nga gëm da nga koy xam da koy gis dañ ciy egg dañ ciy jeex da dem ba am ko waaw waaw am na solo de. yoonu jàmm mooy jublu ci yàlla rek. yoonu jàmm mooy jublu yàlla rek. gëm yàlla. di def lim digle. di def lim digle. di di bàyyi lim tere. mbindeefam yi itam. mbindeefam yi. nga xool leen bët bi mu leen di xool. nga xool leen bët bi mu leen di xool. yàlla kum bind rek bëgg na ko. yàlla day képp kum bind bëgg na ko. kum bëggut doo ndax yàlla moom. kum bëggut doo mën a xam. na def la ngay doomu aadama. rawatina def la ngay doomu aadama. rawatina nag teg mu teg la ci palaasu teraanga. aywa di wax ni mbokk moom am na benn mbokk de dëgg yàlla vidéo audio sax laa bëggoon laal waaye comme bii laa fekk ci buntu bi moo tax euh, lii mooy jàngale Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaye yeneen yi ci des yëpp yëpp yëpp yoo xamante ne ay nit la rek ñu ko kéréel seen bopp te loolu xataa diine ji mu ngi ci waaye mbokk moomu di wax man li ma wax man taalibe Baay Niass laa dama ko ciy jaaraat taalibe Baay laa te sunna laay dund alxuraan laay dund te Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom moo ma moo ma lan mooy sunna moo ma leeralal lan mooy alxuraan ba am naa ci nag fierté gu rëy wallahi lazim euh, bu bu bu bu loolu weesoo ma ñëw ci ci li nga wax kee li mu wax loolu man maa ni du dëgg Baye waxul ni moom mooy yàlla te képp bépp taalibi Baye boo toogal mu wax la loolu ne ko demal nga xoolaat demal nga xoolaat li ngay wax waaye bàyyi Niass moom waxul fenn bindu ko fenn te moom wax na bind na Baye comme ni ñu ko ñu ko gën a xam ni ñu ko waxee na moom jamonoom yàggul yéen yàggu yi bañ naan ñun kéewuñu ko waaye ay audio mu ngi fi. waxtaan na ci maarifat wax na waxtaan na ci xam yàlla te ñun dañuy xam yàlla waaw dañ koy xam moom xàqan waaye comme nu nu ko nit ñi di waxee moom mooy yàlla déedéet loolu moo amul loolu mu wax naa ko te man maa ko waxaat bàyyi ma tànk nag lii mu wax ci audio moom aarif billah la xam na yàlla waaye lii mu wax ci biir audio bi dafa nettali waxu jàmbur